encore Sonko di saaga magistrat di leen wan yéen du ngeen dara dañ leen a jënd ñuy wax mu attaqué le haut commandant de la gendarmerie le général Moussa Fall lu yoonam et puis c'est-à-dire amul lu yónni gendarme ci ku jóg génn këram guddi làqatu ay garde corps am làqatu chauffeur ay jabaram sol capuchon nëbbu kanamam dem ci benn lieu boo xam ne ci couvre-feu bi heure boobu ñëpp war nañoo wàcc ñu forcer ay jigéen ñi di ko nekk pour raay mbelle une séance de raay mbelle raay sama raay ce qui est plus plus ndigg gi lay métti sama ginnaaw gi dana a mën a tëdd ku fa bi lu ma tëdd bu ma dalee depuis ba nekk xale du ma mën dara damay jóg ban ban université ban faculté de waa dëkk ba waa dëkk ba fële ca jir naa ji na noonu foofu la ko jàngalee dafa mel faculté de médecine buy buy faj euh, ponkal moo xam ne ginnaaw mooy métti ponkal mu ñàkk fayda sa ginnaaw di métti guddi mën koo muñ docteur Adji moo lay faj yéen Sénégal yi ngeen di dee pour kooku di wax dof yooyu yeewu yeewu yeewu la xaw yeewu yeewu leen réveillez-vous comme un Dieu doivent faire attention. Le commandant de la gendarmerie, le général Moussa Fall, comment peut-il dans le complot Il l'accuse. Mais complot, moi, oui, le complot. Donc, on l'a menotté, Sonko. On l'a sorti, mané militaire de sa maison pour l'amener au salon sur ou bien c'est lui qui est directement au salon Sud Beauté à l'insu de ses gardes-corps, de ses femmes, ses épouses et de son chauffeur. donc où est le complot dont il nous parle waay waay waay sénégalais yi yeewu leen yéen ku doon nalaw yeewul ku jóg guddi ku wër fa am ñëpp ngi tëdd kenn du génn comme moom député la am na droit génn mu génn salon de poteau yeeg usines yeeg boutique yeeg fépp tëj ñëpp ñibbi nañ moom nag il faut ñu nekk ko ba mu ñëw moom le roi Sonko le prince de la nuit l'homme du couvre-feu le violeur du couvre-feu le violeur du couvre-feu il a violé le couvre-feu de Raimbele. Séance de massage à la Adji Sarr mais Sonko kan la yab wéy na complot yéen Sénégalais yi bi ay Macky Sall ay Antoine Diome ak léegi Moussa Fall général même doyen des juges ku ñëw rek complot parce que respecté wu Sénégalais yi Sonko n'a aucun respect pour les Sénégalais il les prend pour des daa ay dof lañ rek damay damay toog di élaborer rek il a un laboratoire de mensonge de manipulation xam nga Marine Le Pen ni mu ni mu aayee France ba ba topp ci Macron noonu la aayee de ay populistes yoo xam ni di gëmloo nit ñi loo xam ne dara amul c'est des gens dangereux Sonko est pire que Hitler Hitler dafa ndax Allemagne yi dox seen kaw yi ba jël Allemagne indi deuxième guerre mondiale Marine Le Pen. bàyyam Jean Jean Jean-Marie Jean-Marie Le Pen naxoon fi français yi ba gagné fi Jospin dem second tour bu Chirac ñu mel ñu bonee ni la famille Le Pen dem ba nekk premier parti de France ci ay naxee mbaay loolu lay bañal Sénégal ay bandi daje nax bëgg a nax Sénégal ndax pétrole bi di njaayee suufu Sénégal soo ko mën a sàcc la yaa gën a jaay suuf sàcc bi bon la suuf si jeex na xel bu yëg pétrole bi la rek ak groupe ba bu mu àndal pour këf réew mi jaay pétrole bi am ci ay milliers de milliards ndax dafa bëgg xaalis nee na ko tuur cotiser leen cinq cent francs wala cinq mille francs ay dof yu ñàkk fayda di cotiser koo xam ni lambar lambari ci salon de beauté yi la xam